asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi taamu Seneweb di fi taaxirloo seen JT Mbed mi dal leen ak jàmm tey jii nag bi nga xam ni nii yàlla def na ki nga xam ni mooy Balla Gaye 2 daal di daan Yékini daal di nag nekk roi des arènes debaloon nañ leen fa nga xam ni nii mooy Géejawaay laajal leen ñi nga xam ni ñooy supporter am naka la ñu jàngatee boobu victoire ak lan mooy perspective yi pour ce nouveau roi des arènes. tëg rek am ndam boo xam ne kenn mosu kaa am parce que géejawaay dañoo yàkkamti woon mu am roi des arènes ay Pikine am nañ ko euh, ndekkiru Ndakaaru am nañ ko séeréer yi am nañ ko il fallait que nag ñun ñu am ko parce que vraiment daf ñu daf ñu daf ñu sigil laal dañ ko dañ ko yàkkamti woon am te vraiment kontaan nañ ci ñun ñëpp. est que yéen yaakaaroon ni di ngeen gañ si lu leer nañ lañ ci amoon parce que mbëre doole xale moo koy def te li olof naan doole doxul jàmm ñun moom rek la ñuy dawale léegi nag yéen kan ngay ñi laaj. fu mu toll nii fu mu toll nii ana ñun ñun ñooy seef. fii ñun dañ ñoo dee te ñun dana am te ku am weeruwaay doo yomb ba max waaw ñun bi ñu dem combat bi dem ci combat bi ñun xamal ne dañuy dem jëli li ñu moom waaw parce que xam nañ sunu mbër moo ñu ko tàmmal jàpp bëre. daan ñu ñibbisi c'est ça le problème. yaakaar seen yaakaar bi ngeen doon manifester dëggeewul dëggu woon na ci ndax suñu yaakaar bu ñu wax bu ñu doon manifester dëggloo. avant combat bi boo xoolee Balla Gaye avant combat bi nga xool les supporters avant combat bi nga war a xam ne Balla Gaye mii muy dem dañ koy jëli dañ koo déggoo la wax ci début bi dañ ne la dañ ñoo déey. xam nga li doon dem jëli. yow pour yow ci lan ngeen ko daane. ci lan lañ ko daane. dañ ko mis lan mooy mystique lan mooy mystique. victoire moom franchement bett ma quoi sérieux quoi wër bi ma koy seeraan dama ko seeraan ak xel bu dal quoi parce que ragalu ma ko ci côté doole ak bëree. parce que benn Balla Gaye nee na tase na ak Yékini Saal muy pousse 500 kii di pousse 600 ëpp ko doole bi mu taseeg Tyson ak bi mu taseeg baabooy mooy mbër yi nga xamante ne ñoom ñaar bokk nañ ko bëre ak ñoom bëree du benn quoi parce que Tyson daan na euh, Yékini daan na Tyson ñoom ñaar ñëpp jóg ku nekk tàllal loxo mooy daan i leerul kii bi mu leen téye dañ ne est ay mbër la kon côté boobu man bi ma xoolee rek man jàppoon naa ni gis naa fa euh, ëpp ko doole gis naa ne ëpp ko bëre quoi. lu nekk. waaw comme moom na ma ko daan waxee. <laughs> du sax comment dirais-je encore. nga ni rajo yi nga ni rajo yi ñëwaatal ci rajo yi. rajo yi dañ koy takk jusqu'à bout. su pour toujours. dañ leen takk rajo yi. waaw ñun ñëpp takk rajo yi taxaw. moom est-ce que moom dina takk rajo avant combat comme li ma ko waxoon. moom takk na ko rajo. président moom moo waxoon ne xoolal Balla Gaye mënu koo yëngal. mu doon wax naan xaw ma fa jàmbu xëyul sax. bu mu fa gon bu mu fa contré askan wi nga bokk sax yaa si gën a. yées yées na ci ne moom. waaw moom moo ne woon Balla Gaye mënu koo yëngal de nañ ma wax nañ ma woowee roi waaw moom li ko sax ko. man maay roi des arènes. kulli mbër. kulli mbër kulli séeréer mbër. ak kulli séeréer may fanaan baasul xaw ma damay kii. waaw fii neex baasul. fii moo neex baasul. <laughs> am doole am fit mën a bëri mën xeex. nekk cere doole ñeex. non bëggee ah bëggee comme d'habitude ñun am nañ habitude bi parce que moom ñu ko tàmmal bëri daa ñibbi moo ñu ko tàmmal euh, aussi Yékini ñu koy ñaanal yàlla aussi yàlla dafa ko jàmm ndax ñun jàmm la ñuy woote moom woo taw loolu jàmm ñun jàmm la ñuy woote may nañ ko jàmm te yàlla na ko yàlla defal jàmm. man ne du ñu moroomam du lu ñuy def du ko def at du bees président. roi des arènes bu bees ministre bu kii suñ ko téewee ay fanam waaye ay mbokkam ay ak askanam waxuñu la dañu sox sóorum ceeb seetali woon nag mu ngi tudd Galo Bob moom nag artiste bu mag la ndaxte li nga xamni ni moy œuvreum œuvre ci collection Banque mondiale wante mom nak il est méconnu maanaam nit ñu bëri xamuñu ko fi ci Sénégal gu mu dëkk Dakar def na pays Afrique yu bari na participer na ci ay biennale participer na ci ay exposition art bi suma ma dee fàttaliku maa ngi si ay année 80 dal daal waaw hmm. si laa si dugg ngi commencé sama formation CREPS bu Pikine juste ay même pas un an ki ñu yor Moussa Sow dem centre sauvegarde bu Pikine ñu dem fekk foofu. bañ ko fekkee foofu ba maa ngi gën a nekk xale sax parce que dama teel dugg si affaire formation parce que atelier mbedd yi laa nekkoon depuis 76 ba léegi 76 laa commencé jàng métier ak côté menuiserie si la ma sama benn mag jëlee yóbbu ma foofu. ñu commencé comme foofu ay mineur lañ ko fekk nag centre kaw mi di nekk Pikine bon ne ñun comme CEDEPS lañ tàmbalee. léegi ñun nañ def for nañ suñu formation dañuy fay je crois que deux mille huit cent mille huit cent wala deux mille daal lañ doon fay yaakaar naan ma defa formation trois ans def stagiaire euh, menuiserie un an tali bu mag si ku ñuy wax Gris Gazelle dem village naa def fa quatre ans après dem école des arts mu génn école des arts nag euh, parce que boobu sax xaw xamoon yenn art bi dimension mu yegg parce que génn naa école des arts rek bon juste day benn grand ku ñu wax Ousseynou Ndaram Diop mu yóbbu ma service technique ñu may na fa di liggéey. waaye ay œuvre ba léegi fu mu ko mus a wax cartonné na ay œuvre ku ko mus a gis daanu nga leer wante dafa am yu ko metti am yenn souffrance yu nga xam ne nii mu ngi koy ressentir am bi ci bëgg-bëggam am ay difficultés yi muy jàngoonteel yu bari. collection banque mondiale du ku nekk la fa œuvre dugg mu ne ma bis ni ki tey fii ak junne at si France la ma ko wax sa liggéey dootul fayet si parce que bis ni ki tey sa liggéey dugg na collection centrale banque mondiale Washington. Hmm. ma ne ko ah mun ma mu daal di jël benn feuille moom tubaab bi daal di bind ne bis ni ki tey sa bi bokk na si œuvre yi représenté États-Unis kii nit ku ñuul biir États-Unis ci la bindee lii la bindee bind bi ci œuvre bi. tubaab bi moom nu mu tudd xam nga mari naakal ba xam nga ba loolu amee fekk man nag maa ngi éducation surveillée liggéey comme nekk di jàppale xale yi nekk situation difficile pendant 15 ans si laa toogee ne man nag war naa créer benn projet fekk tubaab bi ne naa am naa kii daal pour xool ne ma ne ma naa dem siège banque mondiale bi nekk Dakar moom si boppam mu jël carte visite am jox ma am lu mu signé si ginnaaw lu mu bind ne naa dem siège banque mondiale pour jox leen ko bi nekk Dakar pour ñu xool naka lañ may rittaxalee sama yoon mu ñëw États-Unis bon man it def topp ma sax affaire boobu bon ba bañ tey bis biir ma ni man comme gis naa xale yu bëri côté kaw mi Pikine lañu dëkk Thiaroye yi Kër Massar Parcelles naa jéem a ñëw dugg Pikine installé foofu si laa ñëwee ne damay arrêté éducation surveillée fenn affaire jàngale xëy na xawoon na metti nag parce que ku ñu wax Bousso moo fa nekkoon comme directrice sama ménagère jamono jooju maam xari génn la ñu ngi yor benn entreprise Solida sax si ginnaaw rajo Télé Dunia maam xari dem gisante ak Bousso Bousso na ko galo su bëggee mën nañ ko yóbbu beneen sant face Télé Dunia rajo Dunia def naa fa 4 ans presque xëy suba arrêté foofu parce que sama lépp daal mooy te ba may def loolu maa ngi woon sant kaw même nekk naa professeur tamit CFA la fosse un jàpp leen sans salaire. Idi Kassam Touré ba ñu ma jëlee it aw ma foon salaire soxla ma foon man maa doon yet dem corniche di yetti ñoo di jàppale xale yi foofu bon ba ma embauché tamit looloo tax après sama activité maytuma embauchement bi ma arrêté loolu mais daal fu mu nekk nii. li nga xam daal moom laa bëgg mooy créer musée beaux arts bu Pikine pour di récupérer ñi nga xam dañu am feebaru xel ak xale yi nga xam dañu nekk situation difficile ak les enfants de la rue ak ñi xam ne dañoo dem prison nekkoon ay ñoo xam ne ay tout ay xale lañ ma fexe bu ñu génnee ma récupérer leen jàppale leen si jàppale boo xam ni si yàlla rek laay yëpp di nuyu àdduna bi yëpp euh, di am mbégte nag ñëw ci tey dalal la pour ñu waxtaan tuuti. nag yow. waa Sida Web sax wax dañ la seet si mhm. parce que dañoo dégg ni am na ci looy yëngu temps yi ñu bëggoon a xam loolu lan la. waaw li ma yëngu mooy def ay xawaare show soirée tous les lundis. voilà donc gis nañ leen di xawaare show loolu genre innovation la voilà parce que ñun des fois soit en live concert rek la ñuy dégg nga ñëw ni xawaare donc dafa mel ni genre innovation la parce que tur bi tamit traditionnel nga bëgg ko moderniser nu muy demee noonu. waaw dañuy def xawaare. Euh, xalam mm-hmm. kora ak gars yi musiciens yëpp. Mm-hmm. diggante une heure ba deux heures. Mm-hmm.

clip bi beesu sax waaye ba tey nit ñi euh, télé yi dañ ko bëgg mhm. mu nekk way bu neex mm. way boobu nu mu demee noonu nag nga ko inspiré woon waaw bëggee di tam mu mbëggeel la tam mm. la boo xamante ni moom mbëggeel la ma gis ci sama bopp xam naa ni ñeneen ñi tamit ñu ngi ci gis seen bopp mm-hmm. waaw morso boobu nag nekk bëggee euh, mooy mooy deuxième clip bu album dara weesul def naa ci xarit clip bu bii mujjee génn ni mooy béggee waaw en tant que artiste nga war a polyvalente war nga fu nekk nga laal fa Daba Seye war na xëy sax benn jour woy reggae war na xëy benn jour woy R&B parce que artiste la donc man pour man damay jàpp ñiy critiquer loolu du style Daba Seye dañu xam mais ku xam-xam ne artiste bi wax dëgg yàlla <laughs> fa war a polyvalente fu nekk war na fa mën a laal. Youssou Ndour mooy seen ministre de la culture. Mm-hmm. bu nekk waykat. Mm-hmm. donc yow en tant que waykat naka nga jàngatee loolu. ñaanal yàlla yàlla na yan bi woyof ci kawam wax dëgg yàlla musique moom ku ñu ci jàppale rek moom mooy li ñu gënal yàlla na yàlla def rek yan bi woyof trop ci kawam. Mm-hmm. loolu lañ koy ñaanal. Ndeye Fatou na gars yi ñëw ci Facebook bi maa ngi ci biir nañ ñëw vérifier xool Daba Seye ak live yi xool photo Daba Seye xool programme Daba Seye xool ay projet Daba Seye dina ci am solo tamit waaw di wax sama fans yëpp rek nañuy vérifier bu baax a baax a baax Facebook Daba Seye am na solo trop